ba léegi ñu ngi fi nga xamante ni Maris buntu kër ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 woote fii li nga xamante ni lay def tey muy anniversaire am nga gis mbokkam yëpp ñëw nañu andi jàmmam yëpp ñëw nañu ki ñu taxawal kenn dootu leen ko présenté si Balla Gaye maay liiru jaan monument géej waaye jeexal na wax waaye maay liiru jaan magu Balla Gaye 2 jeexal na wax ki mooy papa papa Ndiaye dama koy nuyu moom liiru bàyyi ko mu nuyu ak yéen liiru nuyu naa la maay booy maa ngi lay ziar waaw maa ngi lay ziar di la gërëm di ndax lii nga def rafet na nga yëg ni sama rakk ji dafay fêté anniversaire am ndeysaan yéen ñëpp ngeen dag ngeen ñëw li dafa rafet waaw yalla na leen yàlla jàppale waaye daal li leen xamal ku ci bokul dal bu mu ñew ku ci bokul bu mu ñëw maanaam. ku ci bokkul bu mu ñew manam xaaral am ku war ñew ki nga xamanteni ni. damaa dama for ci ay weewu nak dama for ay source dama am ay source am ñu dekkul geene way ñu bëgg a ñëw. ku dëkkul Guédiawaye soo fi ñëwee doo dugg. Ah, jaay xawmu ku mu mënta do sama dama dal dama for ci weewu nak wala hmm. xaw ma de ku mu mënta do nag ku dekkul geene way du fi dugg mom waaw. waaw mënul ñak saw rak mo woote tay saw rak lepp lu mu do ci àddina lu nekk day bëri yëngu. kar kar kar kaar macha allah sa bopp bu ndaw. kaar bu ñu catu dimbali ñu. mais lu waral la non non non kaar. avant tout d'abord kaar mais la ma waral loolu liiru la ma waral. Euh, dafa nekk nit nit ñi. ba pare nekk taalibe wàccal boppam. da ngay gis Balla ku ñëw mu fat ku ñëw mu héberger bokkul ak ñi nga mbër daa xaate loolu nag moo moom moo mooy dëkk mooy dëkk ndax xam nga dañoo nekk ci combat boo xam daf ñoo ñor. ndax ki ñuy bëril maa ngi dégg muy ratatati naan man maay saraxu combat bi waaye nag na dem na dem. mais mais du ñu gis ne ak contexte yi nga xamante ni am na jamono jii di coronavirus bi ñu gis. Balla woote ñëpp ñëw macha allah ñëpp ñëw car macha allah mu mel ni Balla Gaye am na dem. corona bi na dem yàlla na dem ak jàmm te day dem incha allah rabbi nan ñaan yàlla corona bi euh, euh, distance six feet rek danañ def six feet six feet rek kese loolu la. mais loolu ñu mën wax ci Balla Gaye. li ma leen wax ci Balla am na taalibe am na yar am na teggin mën na nitu démbam fàttewul démb soo ko xoolee soo ko waxee ay nitu démb moom da lay tuddal soo waxee mu ne Simon Modou Fall ah euh, Talla Mbeng Aziz moo waxaale mooy papam bay Ndiaye c'est mon ami c'est mon frère rakkam euh, doomu ndeyam ba euh, non Baye moog Baye ñoo doon babeendoo babi babi babi babi fàttewul loolu ah ay ñoom Pape Mama Fall ñoo ñëpp ay xaritam ay nitu démbam la te àdduna noonu la nit ki doo fàtte seen nitu démb te Balla am na kóllëre nañ ko ñaanal yàlla musal ko ci bii dangereux boobu. mais ku xam ne ni jëm na combat diggante moog Bombardier dégg nga Bombardier li nga xamante ne wax na la ko si combat. Bombardier lu ma mënta waxee affaire am la moo xam man lijjantiwuma ko yàlla mooy rey du yàlla man su ma nekkee saraxu combat bi nan dem àdduna ci kanamam. booy dama lay wax man sam morom ngaay nee na deux ans eh, arrête kuf ma la Papa Ndiaye làqoon wax la booy dama lay wax bul ma wax loolu ay deux zéro la mais lu wax ah, la lay bul ma wax loolu ay deux zéro mais wax mënu mënu ñàkk li kanam raw li bët booy li ci kanam raw li bët mënu ma laa jur Papa Ndiaye fa waaw alhamdulilah ñaanal leen ko rek confrontation de tey waaw war naa dem confrontation waaye dañ ma invité ñoom bisu ngoone waaw war naa fa dem deux heures fa waaye sama bisu rakk bi sama bisu rakk bi nag vraiment mënu ma ko bàyyi ko dafa sori ci man sa feer sa feer Balla Gaye sa feer ah, ah oui sa feer maay booy moo jaar si baax yaay Couture waaw ba ma nekkee kilifa mi du tey yow xam nga loolu maay booy euh, sama xarit ba sunu doomu ndey borom caaroy géej ndooree ndeysaan borom Espagne hmm. waaw ku baax la ndeysaan reeni seege su fi ñëwee reeni seege la def ne la ku mënta ñëw fii du dugg ku dëkkul géej way su fi ñëwee du dugg maa la wax lii ak lim takk ci ay sër sama ay mi dara wóoru ci dara wóoru sañ kooku fii sax suñu fee jaar maris gii rek wër sañ sa wër maris su ma jaaree maris am du nee na man euh, nee na sarax nga sarax la sarax laa ba boobu yàlla baax baax na